kon bala maa yeggale dama bëgg rek nga déglu benn waxtaan bu ma dem numéro deux defal le numéro deux s'il te plaît kii suma xarit la ku baax la dañoo liggéeyandoo kii moom dama ko fiy bàyyi xam nga suma kër dama tabax kër somon bi ma tabaxee kër somon yàlla def may liggéey campagne bi xam nga bi ma ñëwee géejawaay dama la ñaan set setal mm-hmm. ma dem Mermoz di set setal ba ñu yeew ma yóbbu ma faan ni dama dof yaa ngi mm-hmm. rappelé wu mm-hmm. ba ma ñëwee ba ma jugee faan daw dem crédit agricole yaa ngi film dem crédit agricole jël suma xaalis dama la woo géejawaay man la maa ngi nii di dem nga ne ma ñëwal waaye man la su ma demee damay raté avion bi nga ne ma demal sa lépp dina baax ma am ma dem mënuma nelaw mënuma nelaw parce que mënuma woon comprendre may bale mer di jëmbat garab ba tabax jàkka ñu yeew ma ni dama dof ma may bind may bind di bind may def le cheikh de Serigne Abdou Karim Mbacké et le chapelet may bind léegi docteur tubaab bi nga xam ne moom may faj dof yi. Mhm. ma dem fa. Mhm. jox ko suma livre mu koy liir. mun ma kan mooy sëñ Abdou bi Mbacké man ko sëñ Abdou Karim Mbacké xaw ma ko yàlla rek ko xam. Mhm. parce que xaw ma la. yow yaa ma romb suma buntu kër woo ma topp loo ma kaamil. man la kaamil bi mënuma koo topp woo Mbay Sàmb doomu Ajaa Kolle mu topp ko ba mu jeex. nga ñaanal ko mu dem Niger mu dem Algérie di jàng nga wooma ma ñëw ma dugg sa nga toog sa lal wooma ma dugg sa néeg nga yëkkati gilet jox ma bi ma ko joxee ma sol ko juróom benn fan ma commencé di tukki di ñëw léegi démb di nga ko déglu pour gàttal rek kii mm-hmm. dama ko gis teg ma koy xool bi ma defee suma waxtaan ba pare ma màjjaal kenn faalewu ma kii gorom Ablaye Ba moo ma jox dara ak kanati euh, Ibrahima Ndiaye Ibrahima Ndiaye doomu imam bu Mermoz Tafa Konaté waaw euh, kii nag kii moom dama koy delloo sama jabar dafa ni nga ñaanal ko si parce que yaramam bi ñu sëyee ba tey yaramam dafay metti dama mës a dugg Paris cabine ma woo la mm-hmm. man la maa ngi nii dama bëgg a ñibbi si am naa si six mois dana ma léegi laa jóge tuubaa si lépp dina baax seytaane ni yar suma xel ni ma lim la wax wóor na ma ñaari soxna romb kenn ki ñu xoolante mu mel ni dama gis jinne sama karaw gi jóg taxaw ma dem suma benn kër xarit man ko ki ma gis de def naa ni que suma jabar lay doon ma julli fajar jàng yaasin sëlmal mu wooma dama ni kooku yaa ma ko may dix-huit ans ba tey ñoo ngi nii juróom benn fan la ñu xamante ma ak moom pour bañ a ki kii kaamil la dañ ko imprégné si parfum donc maa juutaluma Ya xëy na yaa ko moom yaa ma toppaloo kaamil kaamil ba nga bind sama gisuma ko ba ngi noonu miskila ki kii moom ci si ñaanal sama jabar

bi ma waxee loolu ma jël ñaari grand mbubb ana ana kii bi sax grand mbubb bii jabaru nuuru ayda nga ñaanal ko moo ma ko jëndal ma tegale ko bi may wàcc fii dix euro laa yore ma dugg néew ba Casa ma dugg Casa bi ma duggee ba Casa benn italien gis ma koo xam ne nit ku ñuul la mun ma ni nga laxasaayoo daf ma neex yëkkati cent mille jox ma ma def fii jiitu lañ naan la nationalité française mhm. takkuma jigéen pour am kayit sa ñaan moo tax ma am ko livre bi ma bind wax sa tur mhm. moo tax ma am kayitu tubaab sa ñaan deux bi doo ko def amiin yaa rabbi amiin déglul lii rek déglul déglul lii rek lii rek doy na lu ne na ñëw waaye na ñëw si darajay alxuraan sëñ bi dama la bëgg Mbàkke Mbàkke dama la mus a bëgg mm. yow yaa ma bëggal sa sa bopp Mbàkke dama jóge Fass Touré mm. kër sëñ Ari Touré mm. ma ñëw nga woo ma sopp ma saa yoo ma rombe nuyu ma xaw ma woon sama xam yow yaay sëñ am yokk ko ma dugg présenté ko Mbaye suba ñu tàmbali moom Mbaye Samb ñuy tàmbali. yaa léegi maa nekk une semaine. kaamil bi sëñ Abdou Karim Mbacke suñu jardin la Paris ngi am 800 mètres carrés de jardin. defar ko ba mu mat. mu jox ko kaamil bi. Mbaye Samb ñëw ni ma kër sëñ bi laa jugee kaamil bi mat bi ñaanal na ñu def si juróom ben fan. Mbaye Samb ñëw ajjuma parce que moo doon avant tuma mbay sàmm ñëw ne ma ah man de sëñ bi de li ma ñaanal de nangu na man ko ah bàyyi jàmm mun ma daal dama ñëw sama yaay ni ma ko suma nijaay ñëw na fii indil na ma bourse bourse bi nag dafa war dem si dëkku naar yi mu dem samedi ba ajuma bi nañ ko ko jox samedi bi la dem mu dem man kese ma def na des fa sëñ bi woo ma sëñ bi woowee ni ma looy def man ko man de defuma dara fii rek laa bëgg a neex sëñ bi ni ma sëñ bi damay toog sama du ma nelaw depuis 2001 ba tey du ma nelaw mu jox ma ma damay nelaw tuuti yow di jàng alxuraan du ma nelaw dama bëgg nag dal nga ñaanal ma danga ma waxoon danga ma waxoon nekkuloon nit kuy toog suma wet. nit kuy gàncax bi ma mais dama bëgg di dem di ñëw nag ñaanal ma loolu. taalibe ñëw ni ma kaay wuy si. <laughs> ah am naa kayitu tubaab fu ma neex dem si àdduna. ba pare toog solo rek mel ni esclave loolu liggéey joxe waat ko. te ma am kër di bon di fay loolu te du ma ñëw deux ans ngi nii ñëw loolu rafet na.